Bassirou Samb ñi ngi lay nuyu di la jaajëfal gannaaw ba nga nangoo suñu invitation. Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu auditeurs Rewmi FM yëpp. ñu dooree ko ak publication liste ngir waajal élection locale ana lan mooy seen euh, attente ci yëf yi Bassirou. waaw ñun li ñuy xaar rek mooy comme ni ko loi bi waxee daf ne le trente euh, ci la ñu war a afficher liste yi pour permettre képp koo xam ne da nga bind woon mu am ay anomalie wala mu am réseau. yoon ñu jox la ñetti fan yoo xam ni di nga mën a saisir yoon pour ñu delloo la ci liste bi ñun en tout cas ci commune bu ma de Grand Yoff démb ci ngoon euh, préfet bi yónnee nañu liste bi ñoo ngi koy étudier di ko jàngat pour xool ndax am na ay manquement pour am na pour phase contentieuse bi nga xam ne ñetti fan la lép loo xam ne gis nañ ko comme anomalie ñu mën ko saisir mais am nañu yaakaar ni li nit ñi indi woon bindu du am benn changement pour que jafe-jafe yi ñu amoon ci élection yi passé ñu mm-hmm. dimbaliñ ci bi yoon ba ñu bàyyi képp koo xam ne am nga droit vote yoon may la nga voté ñu la nga nga bind. Yewwi Askan Wi nga xamante nag dafa dajale ay parti ak i mouvement yu fare ci kujje gi bokk na ca ñooñee Pastef bu Ousmane Sonko waaye itam parti unité ak rassemblement mu di PUR niki noonu itam taxawu Sénégal bu Khalifa Babacar Sall googee coalition wala jàmmaarloo ak régime Macky Sall ci élection locale yi ñu jàpp ci weeru janvier gi ñu dëgmal. mu mel nii lu am solo la ñeel ku jege. waaw xam nga yeewi askan wi dafa ñëw di nekk benn réponse ci benn demande parce que askan wi yëpp jàppoon nañ ñu opposition du Sénégal seen doxalin war nañ ko xoolaat nañu jéem a naka la ñu àndee naka la ñu nekk benn pour jaamaarlu nguur gi nga xam ni ay jafe-jafe ak ay scandale rek la indil askan wi looloo waral président Khalifa Sall ànd ak njiitu opposition bi société pour ñu mettre en place kuréel goo xam ni que dinañu mën a permettre élection yi jëm ñu am ci taxawaay bu am solo ba buñ cay génn yeewi askan wi mën a jël commune yi ëpp fii ci Sénégal. taxawu Sénégal Pastef ak euh, PUR daanaka ñu bokk ci gennuk entité lan mooy chance su googee coalition seen digganteeg nguur gi. waaw chance moom xam naa ne boo seetloo xam ni sax euh, li tubaab di wax la peur a de camp ñu taxawalee coalition ba léegi gis nga ni ñoom ñi ngi tëpp ñi ngi dal parce que xam nañ ni kuréel yi ànd ci biir coalition bi euh, kuréel la goo xam ni am nañu doole tey zone boo dugg ci Sénégal am nañu réelle chance pour remporter collectivité territoriale lool moo waral nag ñu kuréel gi di continuer yokk di accueillir yeneen organisation xam ñu ngi ci bi te am naa yaakaar ne bu nu continuer ba bisub élection yi daañu gis ne yeewi askan bi ak doole ji mu àndal ak parti yi ci ne li ëpp ci collectivité locale alalu réew mi mën nañ koo gagné. Mhm. ci yooyu élection locale ñu jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 caisse dépôt ak consignation daal di nay euh, indiqué candidat yi datu dépôt caution yi période boobee nag mi ngi toll ci fanweeri fan daanaka dafa ëmb weeru octobre yëpp ci fàttali question bi nag ñu ngi ko natt ci fukki million ak juróom caisse dépôt ak consignation daanay wax ni montant ba nag dinañ ko daal di joxe jaarale ko ci chèque banque koo ko def nag moo di mandataire parti wala coalition noo Euh, modus operandi maanaam jëfinu caisse dépôt ak consignation jëm ci googee caution élection yi jàpp ñaar fukki fan ñett ci weeru janvier atum 2022 man dama jàpp ni rek peut-être process procédure la yoo xam ne rek dañ ko war a respecté waroon a wax ci montant caution bi wax nañ ko tey ci yoon am na nu mu ko organiser am na noo xam ne noonu la wax la ñuy dépôt jàpp naa ni caisse de dépôt et de consignation dañ ñu rek li nga xam ne moom la yoon wax maintenant nañu war nga yoon a recouvrer say listes sur le plan national. ay euh, parti politique jot nañoo fekki waat coalition Yewwi Askan Wi mu mel ni kon cérémonie signature bi amaloon ngeen ko démb est-ce que mën nañoo xam euh, xar kanamu yooyee parti waaw ay parti la yoo xam yi ñu ngi nekk ci opposition bi nekkoon front de résistance nationale nekk aussi ci groupe des non alignés ñoom ñëpp ñoo am boole seen doole am yaakaar ci coalition bi ni ñoom kat daañu ñëw fekk si kuréel yi fi nekkoon. pour que ñu gën a am doole loolu rek li muy wane ne woon kuréel la goo xam ne tëjul ay buntam tey ubbi na bépp doomu réew bu jàpp ni kat war nga ñu mën mën nañ fi mën a jële li fi ne nga ñëw fekk si ci biir coalition yeewu askan wi ñu boole suñu doole fexe ba bu ñu demee élection yi Macky Sall ak nguuram ñu fexe ba nangu ci ñoom li ëpp ci collectivité territoriale yi nekk ci réew ñu waxtaanee yaatal coalition yeewi askan wi Mansour Sy Djamil ak Bara Gaye bu parti démocratique sénégalais ñoom itam fekk nañu ko coalition bi mu mel ni nekk na lu am solo ñeel googee coalition. waaw lu am solo la xam nga sëñ Mansour Sy moom ku ko xam-xam ni eh, nit la koo xam ni fépp fu ñuy xeexee ngir démocratie ma nga ca ñëpp fàttali ko discours bu am solo ba mu defoon ci jamono yi assises nationales yi tey mi ngi woon ak ñun ci législative nekk ak ñun présidentielle tey jii dafa fëddali rek taxawaay bi nga xam ne amoon na ko ci wetu opposition bi donc ñu ci am mbégte lool di ñaan yàlla rek li des yàlla na gën a yomb. waaw baara nag mënaguma confirmer parce que li nga ci am ci presse bi rek laa ci am. Mhm. donc dañuy bàyyi rek jamono dox tuuti dinañ ci am lu gën a leer. dinañ xam fan la wane di mujj ak i gëtëm. Ah. mu mel ni kon peut-être est-ce ngi xaar yeneen i parti wala responsable politique ñu fekki coalition askan wi. waaw comme ni ma ko waxee kuréel la goo xam ne tëjuñu ay buntam kilifa yi ci ne dañu ni nañu ubbi képp koo xam ne organisation nga bu ñëw nangoo xaatim charte bi ñu teg d'accord ci fonctionnement bi ubbil nañ la nga ñëw ñu ànd li ñu amal solo rek mooy fexe ba jafe-jafe yi sénégalais yi di jànkonteel ñu mën ko atuwaay naka ngeen accueillir critique ak attaques yi nga xamante ni mi ngi ngàllu ci ndoddu Yewwi Askan Wi bàyyi ko fu ne jamono ji waaw xam nga ki nekk ci kanam rek moom la ñuy moom la ñuy critiquer ki nekk ci ginnaaw kenn du wax ak moom tey ñun dañuy jàppe ñooñu nga xam ne dañuy wër ci télé ak rajo yi di wax nañ leen bàyyi ñu def seen liggéey mais ñun li ñu amal solo tey euh, fépp bépp ci ci cinq cent et quelques collectivités locales cinq cent cinquante sept yi foofa dem tey kuréelu yeewi askan wi ña ngi koy taxawal parti yaa ngay daje ña ngay waxtaan ñoom moment ba ñuy wax ñun ñoo ngi continuer ci suñu liggéey te defe naa ne loolu rek mooy li nga xam ne mooy mooy li am solo. Dakar euh, doon na ab enjeu politique. waaw Dakar nag moom ku ko xam-xam ni enjeu politique la parce que élection saa bu jotee xel yëpp ak xalaat yëpp dañuy ñëw ci Dakar parce que li Dakar di représenté ci ci élection au Sénégal moo ko waral donc tey jii ñëpp a ngi jóg ku ne yaa ngi defar am yaakaar ni war ngaa gagné Dakar mais buñ jotoo la ñu alors ñenn ñi dañoo wax ni Khalifa Ababacar Sall la mu bëgg moo di daal di demaat reconquête bu Dakar. waaw xam nga Khalifa Ababacar Sall nag mook Dakar da di da bu bu bu am solo parce que 2009 ba léegi waa Dakar ñoo ànd ni ko yow la élection yi ñëw ñu feddali seen colère ak moom tey jii nag dañu ànd ak sunu ay nawle ci biir coalition bi ñu waxtaan xool formule bi gën formule bi nga xam ne bu ñu ko defee ñu gagné élection yi ñu daal di koy taxawee te am naa yaakaar nag euh, taxawu Dakar candidat daañu ko porter ci biir coalition bi. nawle yooyee nekk ci biir coalition ba dinañ leen dérouler tapis rouge bi. waaw xam nga ànd bi nag ñun àndoon nawle la maanaam da ngay wax sax bëgg-bëgg keneen wax ñu waxtaan mais am na yaakaar ne tey jii profil yi taxaw profil bi taxaw dakaar di présenté am na yaakaar ne bu ñëwee coalition bi yëpp daañu ci ànd ak moom. Mhm. mu mel ni kon bataay bi nar naa saf sàpp ci biir coalition ba rawatina li ñu duppee guerre des ci yenn gox ak i gox goxaat. waaw xam nga politique nag choc des ambitions la ku ne am nga droit bëgg ndegam parti bi nga xam ne yaa ngi nit bokk seen parti bokkandoo seen carte seen ay carte mooy am ay jafe-jafe parce que mag coalition te keroog ba ñuy lancé coalition fàttali na ñi xam nañ ni dina am jafe-jafe choc des ambitions dina am mais li ëpp solo mooy quel soit choc des ambitions bu ñu toogee daañu waxtaan jiital Sénégal te Sénégal saa bu ñu ko jiitalee rek solution dañ koy daal di am. Hmm, très bien alors waxtaanee leneen ñoom yi nga xamante ne moo am ci trafic passeport diplomatique te ñu duut ci baaraamu tuuma ay député yu pare ci majorité bi mu mel nag yëfi daanaka sax weesu na Sénégal weesu frontières yi wéy di andi ay coow ban jàngat nga am ci mbir moomee waa xam nga am gàcce rek parce que réew mu mel ni Sénégal ak li muy représenté ci diplomatie li muy représenté àdduna bi ñu demee ba suñu assemblée nationale bi nga xam ne dañ ne ñoom ñooy pencum ndaw yi réew mi ñu fay tudd ay scandale yu mel noonu su suñu xol day metti mais li ñuy ñaan rek nguur gi mooy nañu ko leeral parce que il y va de l'image de notre nation gis nañ fi ay dossiers yoo xam ne ba mu fi amee ñu tudd ci ay nit nguur gi dafa accéléré ministère de la justice par le biais du procureur saisir assemblée nationale tey nag assemblée comme moom lay déglu député yooyu nga xam ne tudd nañ ci li ñuy ñaan mooy ñu enclencher procédure bi lever seen immunité parlementaire ñu mettre à la disposition de la justice képp koo xam ne sa loxo laale na ci kët yoon def ci liggéeyam parce que nag li ñëpp di wax mooy tey yoon dafa jeng tey bi ñu jàppee kilifa jàpp Simon denc leen ci kaso bi mais ñeneen ñi ci tudd ña xëy seen kër ci seen ay njaboot te ñoom ñëpp nag tudd nañ leen ci comme nag tey ji tudd nañ leen nañ ñëpp yem ci kanam yoon bu yoon demee nag ba xam képp koo xam ni moo def mais la ci yoon santaane rek ñu mën koo def. Mhm. mu mel ni juñ nga ci tuuti ñu nemmeeku ni ab lenteur dafa am ci wàllu yoon nga xamante nag daanaka ñi ngi taañaañal ci yëf yi lan moo waral euh, lenteur boobu ñu nemmeeku ci yëf yi tey itam wax nga ko sànq amoon na lu fi xewoon daanaka dañoo def liggéey bi mu gaaw. waaw mais xam nga tey li may wax ni damay dellu projet Khalifa Ababacar Sall mm-hmm. ñëpp d'accord nañ ci histoire adduna bi mooy projet politique bi gën a gaaw mm-hmm. parce que boobu commande biñ amoon mooy xalifa bu mu bokk ci élection yi gis nañ Ousmane Sonko bi ñu bëggee lever immunité parlementaire tey nag Macky saal dañ koy ñaan ni ko coût boobu muy wax ne daf koy teg ci dossier na ko teg ci dossier bi am na une bonne occasion de montrer aux Sénégalais yoon ñëpp la fi nekkal parce que yoon kat bu jengee ci réew dem ba askan wi kenn amatul yaakaar ci yoon fa ñu mujj mooy ku ne fajal sa bopp te nag bu ku ne fajalee sa bopp rek anarchie mu am te ñaanuñu yàlla egg foofu. Mhm. nees mën a def ba daal di dakkal yëf yi ndaxte nag buñ ci deful dara waxuñu ci dara état partenaire yu Sénégal seen wareef la ñu jël ay mesures ca wàllu woowu te loolee war nañ ko am moytandiku. mais mais lu ñu jar a moytu la parce que tey bu ñu demee ba déglu France ku mel ni Marine Le Pen. Mhm. déglu dans dans d' pays ñuy attaqué Sénégal mais tey ñii ñoo ñu ko yóbbee Sénégal ku ko xamoon c' est de grands démocrates c' est de grands diplomates mu nekk réew moo xam ne dañ nawoon. tey nag euh, ñaari nit ak ñetti nit benn clan waruñu tax ñu saaga suñu askan loolu nag président de la République qui est le premier des Sénégalais moo war a jël disposition yi wan adduna bi ni kat fii ku fi def lu yoon lu yoon tere yoon dañu def sa liggéey ci kaw bu ko deful ëllëg koo xam ne réew mi ñoo yaakaar la ngay dem di rang ci ambassade pour wut visa alors que alors que passeport diplomatique moom nga war a voyager mais su dossier bi kon ne mais passeport diplomatique Sénégal dootu amati njëriñ fenn ci àdduna mhm. laaj bu mujj laata ñu lay yeewi bile yoon du am mhm. report di mukk jamais mais li am solo baay ñun li ñu amal solo jamono ji mooy ñoo ngi ci liggéey bi processus bi enclenché nañ ko nit ñi inscrit nit ñi inscrit nañ au niveau des commissions tey ñu ngi ci publication des listes li ñuy wax président Macky Sall rek mooy na ñu bàyyi processus mu continuer le 23 janvier jàkka ji ubbi ku mën a nodd nodd. Bassirou Samb ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi lay jaajëfal Babacar di jaajëfal auditeur ak auditrice yu réew mi FM yëpp di ñaan yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi. Amine fàttali ne yaay responsable jeunes yi ca taxawu Sénégal.